asalaamaaleykum mbokk mi maa ngi lay nuyu. kilifa gi ñu ngi lay ziar bu baax. Ah, di la laaj tur bi nan la. El Hadj Omar Cissé. El ah, li nga xamante ne mu ngi am xew fële ca Palestine ah ñuy buntu xatal li nga xamante ne mooy jullit yi jullit bu ne di ko naqarlu tey ban gis-gis nga ci am. waaw xanaa métti la ko rek avant tout métti nañ ko trop di ko naqarlu ba fa naqar yem en tant que jullit euh, il est temps képp koo xamante ni jullit la. mu fajee ko ni nga xamante noonu la ko manee moo xam làmmañ la moo xam ngàndaay la moo xam lu mënul doon c'est parce que jot na ko euh, métti na trop imaginer ay jullit nekk seen réew di jaamu yàlla ñoo leen di leen ko fi defee ba bëgg leen a gumba xataal ba génnee leen seen i réew yaakaar naa loolu moom bu ko julli di seetaanee ba mu am gàccu lislaam yëpp lay doon ba tax na surtout kilifa diine yi ñëpp war nañ see jël seen i matuwaay ba loolu jógee koo fi dootu fi am incha allah waaw méttul nañ ko trop franchement jërëjëf ñu ngi lay jaajëfal merci ñu ngi lay nuyu waaw ñu ngi lay fay sëriñ bi di laaj tur bi euh, Birane Dieng lañ koy wax ñu gën koo xam baax yaa si bu sëriñ Saliou ah, am na naqar nga mu ngi dal ci ay jullit mooy waa Palestine mhm. ah, gis nañ dippi démb ak barki démb ba léegi mhm. ñu ngi leen jihadis yi ñu ngi leen attaqué mhm. ba leen fekk seen béréb jullukaay sax fi ñuy jullee ah, di leen buntu xatal te di leen rey ba ki nga ne tey mooy Sëriñ na def ci benn déclaration am benn wax jëm ci wax loo xamante ne du daw yaram loo xamante ne nit bu ko dégg sa xol day tooy dëgg man sax mën naa wax ne Sëriñ Mouhamadou Muntaxa Bachir yàlla na fi yàgg loolu te ànd ak wér lépp lum naan liggéey la ko maamam ju tedd ji yàlla na ko suñu borom borom kàttanal ko wéral ko yàggal fi taxawaayam ba mu yeggali ko nam ko soobee si daraja yi euh, moom laa def estat ñaaw na ñaaw na ñaaw na ñaaw na ba fu ñaaw que jullit woor ba ngoon jot mu bëgg dagg ak kooram ak lu suñu borom wax ci koor na bañ ba ne moom moo koy fayal boppam la wax loolu yàlla moo ko wax ci alxuraan moom mooy fayal boppam koor nga woor ba ngoon jot nga war a dagg sa koor dundal sunna ñi la du fi amee nga taxaw bañ nañ ko bañ na julli lan la du contrat boo ko defee contrat ak suñu borom nga def lépp liy àdduna danga koy dagg wacc yàlla nga signé contrat nga nekk ci julli ñu ne la lii du fi amee te ko fan foo ñaaw commencé fa fa ñaaw yem fa la commencé fa ñaaw yem fa commencé ñaaw na ñaaw koo xam ne foo ko natt wees wees na ko te ñun julli di de rafetlu wuñ ko naqarlu nañ ko ndax suñuy doole mënuñ koo jëf waaye suñuy biir xol ñu ngi koy naqarlu naqarlu goo xam ne yàlla yàlla rek lañ koy seedal métti nañu ba ci kanam yàlla rafetul rafetul képp kuy jullit naqadi na la képp kuy julli rek umu islaam yi yëpp ñëpp la naqadi mais da benn affaire daf ma see jaaxal sama sëriñ parce man mënuma imagine ne makkatal mu karam fa la rawdatul rasul nekk sallallahu alayhi wasallam mais ñoom lan moo tax suñu borom may na leen force boo xam ne mënoon nañ taxaw taxawu jullitu yàlla yi nekk foofu noon yi nga xam ne ñoom tay ji nii mënuñu def dara mais benn président rek nga ciy dégg mais président Erdogan ñeneen ñi ci des ñëpp déggoo ci kenn te seen i mën nañu wax seen mbokk julli leen rawatina mu nekkaat seen i mbokk arab kenn waratoon leen ci jiitu mais lan moo tax loolu kon am na lu ci nekk ci biir loo xam ne kenn ko waaw ah, loolu laa am lu ma ci wax man moom métti na ma métti goo xam ne sama sama biir xol métti na ma métti boo xam ne su ma woon tax taxaw jaat dinaa taxaw jiyaat ngir lislaam parce que ku ci dee ku si suñ borom dugal na la àjjana. jërëjëf waaw kay baax na jërëjëf. maaleykum maa ngi lay nuyu kilifa waaw sëñ bi ñu ngi lay nga xamante ne mooy réew mi Palestine ah suñu mbokki jullit ñu ngi fa ñi nga xamante ne tey ji bi dinañ buntu xatal ah, ñuy woor ngoon pour dox sax duñ ko mën a def ndax ñu leen di rey di leen fitnaal ba ki nga xamante ne tey mooy suñu Muntaxa mu sell mi di ko ñaanal yàlla yàlla guddal fanam mu def ci benn déclaration wax ci ci jëm ci loolu en tant que yow lan nga ci ban réaction nga def en tant que jullit. waaw affaire nag bu ma ko gisee métti na ma trop métti lu naa parce que lii moom képp koo xam ne ni jullit nga rek soo ko gisee rek donte gëm nga sa bopp rek war na laa mën a métti mu nekk loo xam ne nii narloo ne képp koo xam ne jullit nga te gëm nga sa bopp bon sëñ nag ñu dañ koo sant di ko gërëm di ko ñaanal yàlla yàggal ko suñu kanam te may ko wér yokk leeram parce que à chaque instant yu mel nii bu amee comme caricature euh, comme caricature euh, le prophète Mohammed affaire yoonu bu amee rek man dama seetlu ne ñoom waa dañ ciy jokk moom dina jokk te dina ci intégré dina ci wax li nga xam ne moom moo ci point de vue dina ci wax li euh, bi nekkul loo xam ne métti na trop trop trop trop sax parce que bi affaire amee bi léegi fekk ay julli yuy julli jote wuñu yow dara nga fekk fa di leen dóori ay bali fetal di leen sànni ay lacrymogène loolu noonu loolu lépp def ko pour bund xata leen pour méttital leen waaw mais nag euh, ñoom doole ji nga xam ne am nañ ko bu di def lu mel noonu yaakaar naa force boobu noonu am yàlla borom bi nga xam ne mën a sàkk moom moom moo leen euh, moom ñoom dañ kaa fàtte dañ kaa bàyyi gannaaw te xam nañ ne moom moo leen may door a jëloon mais yàlla nag euh, gëmmut gim ñu te du juum tamit du jaawale donc xañ na nag lu waroon am la rek ñoom ñu ngi ci nekk nag di di def lu leen neex mais nag maa ñaan yàlla problème boobu nag yal yàlla yemale ñi nga xam ne ñooy bi defkat yi bon yooyu noonu nga xam ne nii xam yan na leen yàlla xalagal fii ñu nekk fii nii ci mën ci àdduna avant ñu yegg fële waaw parce que dëgg rekkee dëgg ñii lu ñu nekk dëgg la parce que julli lañ am ñoom julli lañ te dañu julli julli ñoom na ñu ngi julli ñu ngi woor ñu ngi jaamu yàlla seen jaamu yàlla gi ngi jaamu yàlla métti leen tax na gars yi attaqué leen foofu si jumaa di leen dóor ay bal loolu nekk na loo xam ne adduna bi yëpp war nañ ca mën taxaw takk ay mesures xeex fi loolu mu jaaf waaw. Pape Malick maa ngi lay nuyu. maaleykum salaam wa rahmatulah taala barakaatu. di la laaj tur bi nan waaw Omar Sarr li nga xamante ne li xew Palestine ah, ay jullitu kese ah ñu ngi di buntu xatal di leen néewal doole di leen fekk si jumaa yi nga xamante ne fa la ñuy jaamu yàlla ba barki dem fu ñu doon naa fi dinañ leen fekk di si rey ay nit ba ki nga xamante ne mooy sëñ Mountakha xalifa général kulli murit di ko ñaanal tamit yàlla ko yàlla may yàgg feeg wér fi mu def si benn déclaration génn wax ci tey loo gisee loolu. waaw loolu baax li sëñ bi wax parce que waxal na ko ñu bëri te maanaam kàddoom moom sax mooy gën a jote waaw mooy gën a jote te bu ñaanee it yàlla dana dana dana nangu waaw parce que ñu ngi koy xoolee Serigne Touba parce que mbirum Palestine man ni ma ko seetee ak israélien yi maanaam dafa doy waar daal parce que ah, yàgg na lool. xam nga bu ñu demee ba foofu moom c'est ñu ni waa Israël c'est la terre promise maanaam Israël waa bànni Israël li ñu sonnee woon ci àdduna dem nañ ba benn instant bi nga xamante ne nii kenn bëggatu leen woon jamonoy Hitler gis nga niñ ni ñu leen doon def mais ci kaw loolu noonu ba ñu demee ba amuñu fenn fu ñu jëm ñu ni nañ leen delloo Palestine nga xamante ne ñu dëkk ak waa Palestine waa Palestine xajoo leen kon lii fay ñu naar bi xoromam naar bi li mu leen lebal xorom boobu noonu ñoom fayuñu ko mais nit nag di nga ko maanaam dëkkal ba mu bëgg laa génnee yow fa nga xamante ne yow fa nga cosaanoo mais nañu xam ni ñoom seen wàllu bopp li ñuy def dafa rafetul lii ñaaw na trop trop trop trop te nag mais ana ana ana ana ana ana ñi nga xamante ne ñooy jullit yi ana jullit yi ana jullit yi lii waruñu ko di seetaan parce que ak nu mu fa mënti demee du dëkk du yoon waaw Palestine moom mooy ñooñan ñëw ci réewum jàmbur bëgg a nangu suuf yi bëgg a nangu lépp nit ki buy dem sax mënul jàll mënul def dara mais loolu kenn xamul lii lan la mais ñoom fan lañ teg seen bopp bu fekkee dafa am ñeneen ñu leen ngemb tamit muy ci américain yeeg nu mu fa mënti demee ñu dëgg waaw julliti daal ñoo war a am fulla am fayda xam li nga xamante ne mooy loolu parce que foofu noonu ëppale wuñ ñu fa waaw suñu maanaam suñu suñu nu mu tuddati ah suñu patrimoine la ñun tamit waaw ñoom niñ fa amee wàll juif yi chrétiens yi am fa wàll ñun tamit jullit yi dañ fa am wàll parce que ñetti religion yooyu mooy monothéisme ñoo gëmandoo yàlla li ci des mooy yonente yi mooy lool te ñun sax jullit yi gëm nañ yonente yëpp waaw am chance bi ñu am mooy ñun gëm nañ rasulullah sallallahu alayhi gëm ña ca des waaw donc ñoom ñoo ñu gëmul mais ñun gëm nañ leen moo tax ñu xajoo leen mais ñoom ñoo ñu gëmul moo tax xajoowuñu mais bu yeboo ñu xam ne incha allahu rabbi bàyyi mënuñu ji dara bu ñu reyee lu ñu rey rey ñeneen ñiy juddu ñooy gën a metti ñu xamee ko noonu nag xam ne du yomb waaw ça ne sera xam loolu waaw noonu la fa demee ñaaw na trop li ñuy def nañ ko ba waa Israël bàyyi la li ngeen di rey dafa ñaaw ñaaw na trop ah fii dafay jeex de fii day jeex adduna la alaxira lañ jëm ñun ñëpp te on aura des comptes à rendre à Allah subhanahu kon nag bu yaboo ngeen xam seen bopp ngeen topp ci àdduna bi rek day tus moomu leen ko. salaamaaleykum àdduna salaamaaleykum naa la ñiy suivre fu ne ci àdduna bi mooy Dakar Midi muy di wasaare ah nee la amante nañ mbégte ak kontaante mais amante nañ tey naqar naqar tey laa am mënu ma ne am naa mbégte ak kontaante mbégte kontaante bi ma am mooy lan jullit yi. naqaru bi ñu naqaru li nga xamante ne mu ngi xew fële ci Palestine ñu di ko def li nga xamante ne seen i mbokki jullit mu nekk lu ñaaw li nga naqar geneen bi ma ci amaat mooy lan ñaaw na ci àdduna bi ñu ne jullit ñoo ëpp ñuy gis réew moomu ñu leen di buntu xatal depuis keroog ak leetu xaddir la l'affaire démarré ba léegi lañ ñëwaat ci li nga xam ne mooy problème boobu gis ne ñaari nit kese ñooy faral di ci génn di ci wax ku ci mel ne président turki moom moo ci obligé di doon génn doon wax ak ku ci mel ne sëñ Muntaxa di ko ñaanal yàlla yàlla yàggal ko fi yàlla bàyyi ko fi parce que nee na ñun ay jullit lañu bu ñu gisee dara di dal suñu kawam réew ci lu ci mel ne loo xamante ne tey yonent bi sallallahu alayhi wa sallam réew ma nga xamante ne la jóge woon wuyu ju boroomam kon loolu war nañ cee mën a jug ñaawlu ko en tant que jullit la am ñaaw na ña koy def di ay juif di wax ne nekk na loo xamante ne tey man sama xol sax dafa commencé fees ci loolu jullit yi di leen ñaanal yal na leen yàlla sàmm yàlla suturaal leen fa ñi koy def yal na leen suñu borom wàcce ay mbugal mbugal bi yoo xamante ne lépp loo mbugal boo xam ne suñu borom mos na ko wàcce si ay yahud rek wàcce ko si ay nit ñoo xamante ne tey ñu weddi yoon yàlla suñu borom la yàlla ko yàlla wàcce seen parce que ñu koy def ay jullit lañu te ñun ay jullit lañu nekk loo xam ne ñu ngi koy naqarlu bu baax a baax a baax jërë ngeen jëf ah naa la tey tëj bi xaw a naqari parce que suñu xool dafa fees xam nga te samay rongoñ dafa gaaw di tuuru moo tax fi laa ko mën a rek jërë ngeen jëf yéen mbokk yi di ñaanal jàmm ak salaam.